di yëkkati ci suñu làmmeñ wutu ci mbokki jullit yépp di méttit ci suñu xol li bokk métti mbokki jullit yépp fuñ mun di nekk ci àdduna bi ci ak xoote ak yonantu gu yaatu gu sakkan rawatina ci suñ jamono jii ndeysaanam ñi koy wootee fii ci suñum réew di réewam Sénégal mbokk yële nekk ci région Kolda am na waaju fa nekk ne yàlla ko yónni kooku moom fi mu hegg ci wooteeg yonantu même ña doon woote yonantu ci jamono yonantu bi ak ña feeñ gannaawam di xootewaat ak yonantu fi mu yegg musuñoo yëg wala ñu mës a dégg ko fa yegg nga xam ne biñ ko commencé wooteeg léegi ñi ngi ci ñaar fukki at jëm ci ñaar fukki at ak benn loolu dëgg-dëgg ku ko dégg rek bu ñu la yónnee tabaarakallaahu audio yi nga déglu ko wala nga seetaan image yi soo amee caf nga lu mu tuuti tuuti ci gëm yàlla ak tu sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama sa xol dana tàng waaye boo ko dégloo mbaa nga seetaan leen tamit da am gàcca da rus ne lii naka la mën a xewee ki suñu réew mu tedd mu sell mii di Sénégal ak mag ñu baax ñu tedd ñi ko dëkkee woon ak jeexal gi ñu jeexal seen dund ci leeralal nit ñi fi ñuy teg seen tànk ba duñu sànku réew moo xam ne bu ñu demee di lim danañ wax ne quatre-vingt-quinze ñii ne quatre-vingt-dix-sept ay musulman lañ ci téeméer boo jël kon bu ñu demee tabaarakallaahu ba benn waay bu ñuy tuddee a seex waa ah, saalixu ñu ne mooy rooxulaahi turu gudd la am kooku ki njëkk a fësal woote ba foofa ca région de Kolda moom fi mu hegg laa wax ne ñi ko jiitu woon ci xoote ak nubuwatu ak risaala kenn musu faa xegg ndax xegg na ci bu tabaski mosaana jot dafay dajale ay kàngaamam ne ay ay ak ay doomam wantale bant bi ku mu dal mu rendi la tabaski la ba sonn na koo def benn doomam dañoo njëkk wantale bant ba dal doomam mu rendi ko aneem ñaareel bi mu wantalewaat bant ba dal doomam yàlla moom bu lay nattu dafa la koy wan soo nekkul ci dëgg tamit dafa la koy wan ba ñëpp teg ci seen bët mu jël doom jooja fas yéene ne da koy rey doom ji ne ko may ma ma jàppi ci biir njàpp gi rek la jël fetal tabaarakallaahu rey baay ja muy saalihu ruuxulaayi baabu ba ba baabu diin naa turu gudd la am noonu na cee wàññi lu bari nag ba mu génnee àdduna doom jee ko rey beneen doomam bu ñuy tuddee daawuda ruuxulaayi xuutu ko wëyal woote booba xam ngeen ne nag ngeen doon woote ak nubuwa ci ku ci mosoo woote ne damay tabaskee nit ba yàlla natt ko mu rey benn doomam bëgg ñaaree léegi ki mu bëgg rey koo ko far rey ko foofa rek manoon na ñu continuer wote bi yegg nañ ñaareel bi ki tabax kaaba musaylimatul kasaab li muy bon bon danaa ci yegg si ak aswad alaan siiw xoote woon ak nubuwa ci jamono yonantu bi seen ak mbon xeet bu toon ci tabaski nit seen ak mbon yeggutoon ci tabax kaaba ñu ne yee tabax nañ ak kaaba di ko wër wan nañ ma image bi ma seen leen ñi sol ay yére yu weex waaye ndeysaanam boo leen xoolee rek ñett rek ñoo fa ne ndaw lu ñarut ak jigéen gu jëmul fenn ak mag mu bëgg ku ko mosal ñu ne ren àdduna bi kenn xajut ñoom rek ñoo xaj di ko tiitaroo ñoom sax xajuñu ñetteel bi tabaarakallaahu ñu ne xam nañ seen téere bopp boo xam ne du langue arabe musaylimatul kasaab li muy bon bon aswadul anasi ku ci ñefe woote ab téere ne moom lañ wàccee ci man xamut ci woon doon jéem a toppandool alquran di amoon na ti musaylima waaye moom ñu ne amu ne am na téere bu ñuy tuddee jam-jam padaar téere bi ci alpulaar lay wax maanaam gis naa ko ñu wan ma image bi muy taxaw di julli waaye billahi bu taxawee di julleeg la muy jàng ñaar nga yëg mooy naqar ba bëgg tuur say ronkañ waaye boole ko nga xam gàcca ci lu bon lii naka la mën a xewee ci suñu réew mi di senegal mu ne téere baa nga tudd jam-jam padaar ah téere yi masa bàyyi ko ci asamaan de ñëw ci jaami yàlla yi sama samadu lañ koy tënkee muy cent quatre téere yooyu yëpp bu ci tudd jam-jam pa daara amu ci gis nañ ca bu ci tudd am na linjiil am na zabur am na maanaam suxufu ibrahim ak yañ wàcce woon ci yonum te yàlla aadama am na ca tamit bi leen ndar kepp nga xam ne doy na walis lépp te dara mënta doy walis ko muy furqaan mom mu ne am na téere jam-jam padaar lañ koy tuddee boole kook maanaam bu ñuy julli ba dañuy tari ca téere booba noona euh, di ko wax ci langue alpulaar bu ñu rukkooyee loolu la ñuy wax seen nodd ya tamit loolu la ñuy wax bu ñuy wër kaaba ga ci seen ñaan ya loolu la ñuy wax kon de moom mii saalihu maanaam ruhullahi teg na gàcca nit ku ñuul ba mel ni gàcce gi abrahata tegoon nit ñu ñuul ñi teg nañu ko waaye ñaareel bi teg na gàcce gu rëy ah, africain yi ndax Afrique la dëkk waaye tamit teg na gàcce gi gën a rëy sénégalais yi ndeysaanam Sénégal gu tedd gii nga xam dem màkk ne Sénégal laa bàyyee ko sax dañ lay fonk teg nañu gàcc bu rëy rëy rëy rëy waaye nag mu gën a teg nag gàcca ndeytaanam suñu mbokk yu baax yu tedd yi nga xam ne tey ñooy njaatigee ñëpp tabaarakallaahu di alpulaar yi nga xam ne tey ñu ñu njëkk a am diine lañ ñu njëkk a dugg ci diine lislaam ci xeet yi ñoom lañ amoon leader bu màgg bu tedd boo xam ne mooy kilifa ak ñëpp di Cheikh Omarul Fuutiyu kon moom mooma gune ci xeet wa la bokk te bokk ci xeetu tooroodo di xeet wu tedd woowu xam ne Cheikh Omarul Fuutiyu ci boppam ma ngay wax ak ñoom di wax ne bani tooro kunu misla abaina al awwali sawil majdi wa taqwa wal ihsaani wal adli eh yéen waay banu tooro nekk leen ba mel ni suñ bàyyi ñu jiitu woon ndax Cheikh Omarul Fuutiyu ci bani tooro la bokk kon kii bu ne ci xeet woowa la bokk ak ni Cheikh Omarul Fuutiyu sellee ak njàngale mu rëy mi mu fi jàngale ak liggéey bu rëy bu mu fi def ci diine gannaaw bi mu tegee nit ku ñuul gàcca moom saalihu moomu teg nañ teg africain yi gàcca teg sénégalais yi gàcca teg na tamit alpulaar yu baax yu tedd yooyu tamit gàcca bi Cheikh Omar naan mel leen ni comme suñ baay yu njëkk ya ñi nga xam ne borom it tedd nga lañ di borom mag ragal yàlla di borom mag rafetal di borom ak maandu yii critère mu ne la ban yi yi ràngoowoon ca kasaanal bàyya da ki ji jamono kon ku mel nii bu ca bëggee génn bu ca bëggee feeñ di wax yu kenn xamut tabaarakallaahu dëgg-dëgg loolu gàcce gu rëy rëy la Cheikh Omarul Fuuti wax mu ne ba nii tooro tuubu warjiu li turaasikumu jihaada li turaasikumu jihaadi aduwillahi dawman bila batali waaye waaye yéen banu tooroo tuub leen dellu ci yàlla da ngeen dellu ci seen mbëteef mooy seen ak ndonu gi nga xam ne moom la leen bàyyi bàyyee woon loola mooy lan mu ne mooy jihaad ak noonu yàlla yi nekk ca rek bu am daggante bu am ak tayal Cheikh Omar ay wax mu ne bani tooroo siinaa fiihi kaana usulukumoo wallahi li ajli jihadin jitum fuuta bi zaali mu ne yéen ba nii tooro xanaa xamule ne tuuru sina di doj woowa yonentu yàlla Musa doon wax ak boromam bala ca xew-xew ca ci falammaa tajallaa rabbuhu lil jabali foofa mooy seen cosaan li leen tax a ñëw Sénégal ak li ko wër yëpp mooy rek jihaad tasaare diine moo leen fi tax a ñëw kon continuer leen ci loola ngeen nekkoon kon daal dëgg dëgg dëgg waxin wu rafet wu tedd wi la Seex Omarul Fuuti yu mu tedd ma wax ci askan wu baax wu tedd woowu waa ji tabaarakallaahu nguur si naan ñi koy tuddee Seydunaa Saalihu Ruuhullaahi ne moom ci askan wi la bokk waaye mu ne moom yàllaa ko yónni ndeysaanam a tabaski gu jot mu wante lay bantam ku bant ba dal mu tabaski la ñaari yoon yëpp mu dal ci doomam bu njëkk ba mu rendi ko bu ñaareel bi ba mu ko rendee kooko sax xeexo bu rëy tabaarakallaahu am na ca lu mat juróom-ñaari bakkan dee nañ ca da da ko du ko defee tamit bu deuxième bi nag kooka moom xam ful la lool ne comme déegi benn rek la ah da nga maa bëgg a rendi dem jël fetal rek ray baay ja ba baay ja dee nag actuellement ki ko wutu mooy tabaarakallaahu daawuda rooxulaayi nekk ca tey nga ma dégg muy euh, ñi nga xam ne tey ñu ngi woote tabaarakallaahu ci ab téere boo xam ne wax nañ ne wàccee nañ ko ci ñoom tuddee ko jam-jam padaar xam nga loolu dëgg-dëgg euh, gàcce la gu rëy ci senegal gàccee la gu rëy ci der bu ñuul waaye gàcce la gu rëy ci képp koo xam ne africain nga waaye gàccee la gu rëy tabaarakallaahu ci euh, maanaam euh, xeet wu tedd wu sell wow di xeetu Cheikh Omarul Fuutiyu bi nga xam ne dundam lépp da koo jeexal ci leeral kii ñëw bëggal lëndëmal mais du ci am ndam tey nag ñi nekk fa ne Cheikh Xasan Mbàkke Baabulaahi lañ koy wooyee tabaarakallaahu mu nekk ca loola ñu am seen kaabaak bopp ah jaaral bi ku ñu ne am nañ seen alquran yi bopp tabax seen benn bayti maal boo xamee ne ni dañ cay dimbalante di ca lebalante boo amee xew xam nga nit ñu lekk rek lañ bëgg danañ ñu danañ ca rey ci seen cérémonie lum néew néew lu mat téeméeri nag su ko defee nag ñi nga xam ne mooy xale yuñ yarut ya ak jigéen ñu ut kilifa ya ak mag ñu bëgg ku leen mosal ya ñoo ca nekk tamit wër ko mbir mi nag tabaarakallaahu mi ngi commencé di tasaaroo te ma nga nekk ca région Kolda ca frontière u Gambie ak Sénégal yaay jàmme sax am na jëflante woon na ñoom waaye dëgg-dëgg lii daal maa ngi koy wax di ko naqarlu ci sama xol di ci wuutu mbooleem ku koo xam ne li ma li ma li ma dal moo dal li ma yëg moom nga yëg waaye mën naa am occasion bi ma am ci ci waxeekaay di ko wax amuloo ko ma ne naa la ci wutu waaye maa ngi kilifa yi diine yëpp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 ak nubuwatu goo xam ne yonentu waxoon na ca ba jeexal yàlla wax ca ba jeexal yow loo ca waxati rek yonentu bi ngay weddi loo ca waxat tamit yàlla ngay weddi su boobaa nag yow loola boo ko bëggee wax état la ci rolam moo am kartan moo am doole mën ko fee jëlee boroom xam-xam yi amuñu pouvoir lu dul wax ko ci seen làmmeñ ñi amul xam-xam amuñu pouvoir mënuñ lu dul méttali ci seen ci seen maanaam làmme ci seen xol yow yàlla ñu ngi lay seedeel ne euh, phénomène bi feeñ métti nañu naqara nañu dëgg-dëgg métti nañu métti na képp koo xam ne am nga caf nga gëm yàlla ci sa xol su ko defee kon nag loolu lu doy doy waar la xoote la boo xam ne daal ak wax joo xam ne daal ña ña jiitu woon di nu buwatu sax ci jamono yonantu ba sallallahu alayhi wa sallama fii euh, tabaarakallahu Seex Xasan Ah, nu moom loolu la ko waxee boppam Cheikh Xasan Mbàkke baabu laay turu gudd la eh, moom fi mu xegg ni kenn mosu ndax boo jëlee Musaylimatul Kazaab mii nga xam ne dafa doon xoote ak nubuwa bindab leetar yonantu bi ne ko suuf si ñaari xaaj la yaa xilif genn wàll gi di seen ab yonantu man mii ma xilif genn wàll gi di seen ab yonantu bi delloo ko leetar ne ko daal leetar baa ngi baxee ko ci Muhammad jëm ci musaylumatul kazaab mooy musaylu mi nga xam ne fenkat yëpp moo leen dàq fen ci dàq fenkat kat yi nag kooka ay fenam kon kenn xamul fa muy yem moo tax mu defe ko sixatul mubaalaga fenkat yëpp moo leen dàq fen maa ngi koy xamal ne ko suuf si yàllaa ko moom moo koy donnaloo ña ko neex te ñam koy doon loo ña gën a taxaw mu doon loo leen ko mooy jaamam yu tedd yu sell yi nga xam ne nangul nañ ko nangu nañ seen ak njaam yàlla di ko xamul di ko jaamu lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax musaylimatul kazzab mu bon mooma doon xoote ak nubuwatu tabarakallahu waaye gis nga ko euh, bi yonent bi génne àdduna gannaaw siggi la ko euh, wax siyu rey moo ko rey daana bàkk moom wax siyu ne ba may baax maa maa rey euh, ki gën a bon bi may bon maa rey ki gën a baax ndax bi ma tuuba gut maa ray Hamza mi bàyyi taxu yonantu bi maam xalifa di ko dàkkante ne laysil ilahi wa amil haadi karimil xisaali kon kookaa gënoon ci jamonoom man rey naa ko kon bi may ta ba ma koy rey damaa bonoon rek nekkat xéeféer ñi fay ma neexal ma digal ma ak ngore babul fa ma jaar ak moom ma rey ko waaye tamit euh, bi may bi ma bi may baax nag mooy boo ma tuubee ba pare maa rey ki gën a bon doon woote ak nubuwatu bi musul mutul kazaab mii doon wax ne fa inna al arda lillahi yurisuha man yashaau min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ci li ko yonent bi delloo ci leetar ba gannaaw bi nga xamee ne moom dafa defoon ci leetar ba nag min mus min musaylimati rasulillahi ila muhammadin rasulillahi amma baadu fa inna al arda nisfuha lii wa nisfuha laka fa ajaabahu rasul sallallahu alayhi wa sallam min muhammadi rasulillahi min muhammadin rasulillahi ila musalimatil kazzab amma baadu fa inna al arda man yashaau min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin su ko defee Aboubacar moo xeex ak moom tey jullit ñi buñ amoon leader nañ ko amee woon ci jamono yonantu bi am leader niñ ko amee woon ci jamonoy Aboubacar Siddiq am leader niñ ko amee woon muy Seyduna Omar ci jamonoom am leader niñ ko amee woon ci jamonoy Ousmane ci ma bañ koy rey nag la man ngeen ni mujj am kilifa ak diine bu ñëpp déggal bañ ko reyee ba bis ni ki tey koo waxati ak lu mu rëy rëy rek ñenn ko déggal xale yooyu ñëw wutul ko ñiy déggal ko ñiy déggal Muawiya gannaaw si gi ñoom ñaar ñëpp ñu génn àdduna Xasan toog ñiy déggal ko ñiy déggal Yasid loolu moo roogaat tey tasaaroo ci réew wax adduna bi yépp waaye tey su fekkoon ne diina ji pouvoir doole jiñ am amoon nañ leader lii dañ ko fi jële xeex ak ñoom kuñ ray ci ñun dañ leen ni rey te nga de te yow mañ rey nga dem aljana koo rey ci ñoom tamit tabaarakallaahu mu dem safara ci nga xam ne gëm nañ loolu nga xam ne yàlla wax na ca ba pare kon di jamono ji li jar a xeexal ci diine mooy diine ci am leader koo xam ne bu àddoo ñëpp jukk bu diglee ñëpp taxaw pouvoir boo xam ne moo ëpp doole état yi ëpp doole lépp am nañ doole jooje waaye njiit loo xam ne mooy suñ kilifa bu taxawee ñëpp nekk ca gannaawam loolu la diine ji ñàkk te loolu buñ koy ñàkk rek duñ dem moo tax Seex Umar Fuuti waxoon na ko dégg nga li kulli qatilin yanax yanaxnuhu walaysa ala diinil muhaymini naayixu ku dee am ku la jooyal sa dëj ba mooy diina lislaam moom rek tey moo mën a dee ñi tëral ko di ko rendi askane ci moom lu ca bokkut taw doo doo gis ku ko jooyal ku ko taxawal xam nga tey kii lii mu def di ko xoote tey bu doon tey lii dafa daloon ci kaw gën kilifa diina ci kilifay diina yi fi nekk balaa ngoon ñu réglé ko ci nu mu gën a gën a gaawee waaye lii mat na ñaar fukki at ba tey mi ngi commencé tasaaroo dara nga ca mënut ta mi ngi nit ci suñu réew mi lu lu ñu ko lu ñu ko lu ñu lu tax ñàkk leader kon nañ wuti leader boo xamee ne nii mooy jiite ñëpp lu mu wax ñëpp d'accord ko waaye foo ca dem rek ci gox ci mbooloo ñenn ñu ne ñene leen jiite boo waxee mu ñëw kooku ma kooku laay déglu man déglu ko ma keneen kii ne kooku laay déglu déglu ko ma keneen ci biir ñu ñuy déglu nag waroon nañ see jiital koo xam ne moom la ñëpp déglu bu joxañee ñëpp dagg lim joxañ fekk yegguñ foofa li ñu naqari ci lislaam duñ ko mën a faj ba yowmal qiyaam coow lay métti rek waaye dara lañ ci mënut kon Musaylimatul Kazaab li muy bon bon musuñu koo gis mu yëkkati téere ne man la téere baa ngi nii rawatina lam doon wax ak néew ci langue arab la ko daan wax ni alquran wàccee ci langue arab waaye téere bu wàcc ñu ne yow ci liñ ko wax nga ne ci langue pulaar nu mu tudd nga ne jam-jam palaar wallahi ñi fi mos a woote nu buwa ba ba doon ba sosoo ba léegi mosta am Musaylima mii ñi ko njëkk woote ci la bokk ci jamono yonent bi gannaawam boo jëlee ku ñuy tuddee aswat al anasi ku amoon doole la nekkoon yaman xoote ak nubuwatu ak risala génnee mbooleem jaraafe yonent yàlla muhammad ya fa nekkoon waaye yaman yépp fàqu topp ko ak dooleem ja waaye ànd ak loolu lépp kat moom keroog bi yonent bi di génn àdduna avant muy génn àdduna ci bis boobu parce que ci lañ ko rey yonent bi jot na information bi dara dem xalaqira ki ko ray mooy fay Fayruz ad-Daylamiyu moo ko tërlu rey ko bañ ko waxee yonent bi yonent bi bég ca jullit ñëpp kontaan ca ci mbonam ji li muy rëy rëy di al aswadul anasiyu nekkoon ab buxaaba di xoote ak nu nubuwatu colonise yaman ba génnee jaraafi yonantu tuba yonantu bi yónni fa Muaaz ibnu Jabal ak sang yooya la ca xew lépp terewut moom mi xeggutoon ci ne am naa kaaba xeggutoon ci ne am na téere ba ñu koy tuddee jam-jam palaar kooku musul faa xegg boo jëlee banu asat di xawmu tulxata wala xawmu talxata talxata bnu xuwaylit doon woote ak nu buwatu ba yonantu bi yónni xaalit mu dal ci kawam ray ko maanaam not ko gannaaw xeex ba su ko defee mu jébbalu ñi ray nitam moom mu jébbalu rafetal islaamam nga li mbon li mbonam ngay fés fés ci jamono yonantu bi mu wooteeg mu buwa mustaam ab téere wala muy tabax ak kaaba kenn mësu koo dégg mustaam Xaalid ibnu Waliid la fa yonent bi yónni woon mu jaamaarloog nitam ña gañe leen moom ci boppam gannaaw si mu tuub rafetal ak tuubam. gis nga ko tamit ñett ñi ñooy ñi mos a woote nu bu wootu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam talxatu al aswadul anasiyu ak maanaam musaylimatul kazaab aswad mi ngi bokk ci banu mudlij musaylima mi ngi bokk ci banu xanifata talxatu mi ngi bokk ci banu asab jamonoy abubakar siddiq benn jigéen gu bon bu ñuy tuddee sa jaaw mun fiir moo xoote woon ak nubuwatu ne yàllaa ko yónni mu jël boppam may ko mu sëy lu matul kasaam ne ko takk nga nga yonantoob góor ñi ma yonantoob jigéen ñi mbir mi gën a yaatu li muy bon bon mustaxeeg bi ci ne wàccee nañ ci man téere nu mu tudd mun a jam-jam ba daar mustaxeeg ci ne tabax naa kaaba ñëw leen ngeen di ko wër si yéen africain yi kenn warta demati màkka ñëpp di ko dégg mustaam kon daal dëgg-dëgg lépp lu ñu dal ci nattu wallahi mérito na lu ko ëpp dal ñu ndax fi xeet ya jiitu woon yeggoon ci mbon passé nañ ko di dem moo tax wallahi lu ñu dal rek mën nañu séentu lu ko gën a garaaw ca nam mu dal leen kon xulafaawu yi nañ xam loolu gëstu ko ba xam fa ñu teg seen tànk man dañ ko régler ci nu mu gën a gaawee bu ñu waxee état état régler ko ci nu mu gën a gën a gën gaawee waaye lii lépp bu ci kilifa yi noppee njaboot yi nopp ci yarab yàlla bi far force dana dal ci suñ kaw te su boobaa kenn du ca mën a mën a mucc nañ ci bàyyi xel wattaqu fitnatan laa tusiban lazina minkum xaasa nañ ko dawal kon loolu laa doon ubbee waxtaan wi gannaaw métit lu ko